abi bi sifflé na waaw ñaari ñu jàkkaarloo ñaari mbir yaa ngi mel ngir jàkkaarloo seen combat bi à Douaré Siteu numéro 2 ak ak Siteu Soldar Siteu sànni na benn léegi waaye darul Siteu mi sànni na darul ñaari mbir yaa ngi xeex waaye ah si dëgg la tànn bi mu wane ah am na ñoo bëri am na yaa ngi xeex ba léegi te te ba léegi ñu ngi cokaas. waaw ñaari waaw ñu ngi saa rek pour sànq ba tey waaw waaw salaamaaleykum salaamaaleykum waa sey naa lii lan la. sànq numéro deux participe soldat. mais sànq gis naa ñu wure wure boo xamante ni. waaw waaw mais njool mi bu mënoon a def demi sélection plaqué ko day jeex. ndax placage bi ndeysaan. mais tey bëre yëpp ay neex. amoo seen placage waaye. xoolal booy yi xoolal booy yi jàngaluñ leen. waaw oh, pop pop pop. numéro deux a boo yaa ngi balaar si daw na jël ko jël na tànk toog mooy Samba Ndeye booy bi bëgg tàgg la ay waay déggal lii déggal ma lii ay waay Samba ma ne Seydina damaa xam booy moo tax booy moo tax ma siif micro bi booy bi ñu booy bee doon épercule hop hop hop hop waaye lii moo bëre waaye tànk bi la jël mu nangu ko ko door ko tànk mu continuer tot tot moo tax tànk bu ñu ko jëlee boo ko xamee da ngay nangoo. boo nangoo borom ñàkk. waaw moo tax mënu ci dara. mu ngi mooy si jéemoon na rëcc tànk bi. mu jéemoon ay waay. mooy tukaar. waaw papa mooy loolu. non booy bi bëre kan la de. ndeysaan booy de xar na ko mu bañ. non tey laa mujj lépp ay neex. dafa war a neex ay mbëri commentateur la. dafa war a neex xoolal booy li ñuy doog kase. booy loolu bu diisee baax de. Eh, dépercule du oyof. Oh. booy mooy lu xamoo kii lay dóor daa mën a bëre. moytul booy bi si suuf. waaw moytul rakku sentel bi. jarbaatam jarbaatam waaw waaw c'était numéro 2 mais mi ngi bëre njool mu mën a bëre waaye njool mi bu tibbee day rafet mais ci biir bëre mën a bëre seen bopp ndeysaan xoolal entraîneur bi waaw ñoom ñëpp xoolal taxawatul du moom dong euh boy daan ko yoxoosu arbitre souffle na ay waay dem na ardo génn na bisaaba génn na bisaaba ay waay te bisaabam tuuru na Op, op, op, op, op, op, op. Ma ngay jëm arro. Oh, oh. La mu ngay amaat nii si biir sama waaji. su biir man Soroxala TV sama doomu ndaya fa ne bëgguma muy wéet Souleymane Niang di ku baax ko baax man bu ma ñëwee jàpp Souleymane rek a Souleymane dara dafa yaru dafa yaru dafa gëm liggéey xëccoowul dara nangoo ñëfe moo tax mu am dara yàlla wul kenn dara waaw am lu bari dëgg neexul kii ba wax xam moom lamba la ngay am rek Soroxala TV doole yemul waaw waaw arbitre la lamb la ci sama wet waaw waaw Prince Lamb borom jëlee waay am capitaine am waaw Billahi borom Kër Massar capitaine wala commissaire non commissaire capitaine kan mooy capitaine mooy mooy mooy ah mooy capitaine mooy ah. commissaire ah mooy capitaine capitaine mooy <laughs> mooy di <laughs> naa rek di des non bu ma dooree commissaire yaa capitaine yàlla na jàmm yàgg waaw yàlla na jàmm si la lépp xat yàlla na jàmm si tural mais daj naa si lum kenn dajul ndeysaan mais après naa koy kurus ndeysaan loolu dinaa ko leeral gars yi waaw waaw vidéo mu ne neex na mais bi ma génn na xari na waaw waaw neex na trop waaw waaw waaye tamit ñoo ci laawa yee saa bi waaw waaw loolu am yi sifle waat waaw waaw arbitre sifle na wura wajam na kon waxi mag dem dañ taali bàgg war mbaam ñaari mbër yaa ngoog kowe sowe sentel numéro deux sentel numéro deux face à Cité Soldat à Cité waaw waaw tànk bi mi capp cappal ci kanam non booy dañoo roy Cité ba dee waaw waaw moom la may joxe te boobu gauche bi neexoo Siteu a bëre woon ak may vingt ans waaw waaw gis nga ko gis nga ko gauche ñu a loolu Siteu Siteu Sentel Siteu Sentel maa la wax loolu premier combat. premier combat de la soirée. waaw waaw tey le samedi 18 mars 2023. tey ku rëkk. ndeysaan ñu ngi arène nationale Yaram Art Production moo organisé. Yaram production Yaram Art Production moo organisé. ak a la defee la. est-ce que xam ah ah yàlla bu mu yàgg nag. non bii bu yàggee dafay yàgg. seen naa ah, maa la wax loolu. non ay combat yu gaaw. deux minutes lay ah, ah. neexee. que bëre nañu xeex nañu mais dina yàgg nag bëre nañu xeex nañu doo xool mais xam nga la moo tax mu yàgg ah. boobu kenn bëggul maye dara boo yee mën a bëree kenn bëggul xajal sa morom waaw gisoo booy bi lim iskiw gisoo lim iskiw surtout mais ah mais booy bi kalone bi ñu la sental de waaw mais jëlal loolu booy bi jël na mag bi de ndeysaan ndeysaan ni jaay ah, ma ne ko moo tax ku jur gi woo war na yàlla doomi naanaan naanaan gaar yaa ngi léegi koo waaw santal santal kii ñool la da nga koy sax maa la wax loolu waaw le professeur Tidiane Faye moo ko indi Lansar dañoo yàgg am ndaara noonu la ko demee booy bu judd mën bëre Tidiane Faye le professeur de l'arène ni mu andi santal numéro deux Tidiane Faye rek ndaara waaye eh, kii di Siteu oh, booy mooy jul gos boobu mooy jul gos bi booy di sànni waaw waaw gauche droite talonné kooku ñu ngi koy droite talonné loolu booy booy la woon boo dee jël mais ma booy ñi de booy ñu ngi balaare non booy yaa ngi balaare arbitre souffle na mi-temps booy mi-temps waaw Malick yow yaa ngi nelaw de mi-temps Junior Aliou Boussou dawaat na dawaat na minute waaw Super Soldat Soldat numéro 2 waaw waaw waaw jëlaat na tànk bi jëlaat na tànk bi trois fois mu jël tànk bi moom Siteu waaye seen tànk bi daa mel ni mbiru tànk la moo tax bu jëlee tànk bi rek la ñuy génnaat bu bëri nga ñaar ñu jàppante da ngay bëri yaa ngi dóor hop oh, hop hop hop delluwaat nañ de Seyna ñaari booy ay waay booy foofu kenn du fa jaar booy tànk ba ngay plaqué booy di tànk yaa ngi jaar foofu doo daan doo ko épercule épercule doyul waaw yow loxo bi lamb yoon oh ndeysaan hop oh, hop hop hop mais Sentel numéro 2 mën na bëree nag. waaw booy bi da ngaa xaw a sàcc relos. booy bi relos moo ko muccal day rafet rek. waaw bëree nañ. bëree nañ. gisoo booy bi xar la am. xar xar la am. da xool xar wala mbooloo. xar kenn du ko mboot. wet gële rek mënoo ko daan. gis wet gële doo ko daan. saa yoo fi xam na ko. ndax bu say tànk déplacé woo rek mu rasu. ndeysaan waaw moom sental. sental li ku mën a bëre la nag. dafa mën a bëre tey day bëre njoor. dafa doon lu bëre. dafa doon lu bëre. waaw ndeysaan jëlal coup ba ak coow. coup de dégagement la. loolu mooy coup de dégagement. waaw waaw waaw dafay dégagé. waaw demaan na yéen a nekk bisaab bi mais jàmbaar la nag jàmbaar la. fi mu toll la mais jàmbaar la.

parce que mooy seen teel a ngi dox ci kawam seen teel a dox ci kawam booy baa nga rasu booy bu dugal la benn laaw sagoor nga ko sagoor nga sànni na ko nag da ngay bëgg a doo doo ko defati booy ay waaw laaw yi perdi day soral mbër waaw waaw coup perdu day sonal mbër. day sonal day door si air bi waaw. dalul dalul sonal dalul waaw day yóbbaale doole. ay yow sportif noonu. na tànk ba du ko fa daan. du ko si daan du ko si daan du ko si daan daa la booy ay waay ay waay non santal maa daan la boo fi génnee du du si génn Sendé du si génn ay waay oh waxoon naa la ko waxoon naa la ko waxoon naa la ko waxoon naa la ko daal oh pop pop pop pop pop oh pop pop pop pop pop tellement arbitre ba entraîneur ba tellement entraîneur ba waxoon naa la ko waxoon naa la daa mooy pare boobi day dem boobi day dem boobi day dem barke yàlla waaye lii laa bëgg waaye nee naa la bul jël tànk bi du yoon mais quatre fois waaw newoon naa la du ko seetaan newoon naa la du ko seetaan maa la ko wax wop pop pop pop mais sentel bi sentel bi da ngay si baaraam waaye bi yëngal na stade bi ee pop pop pop boy boy jàmbaar nga boy jàmbaar nga sàcce daanu faaw jàmbaar nga waaw da koo remplacé pop pop pop